dali na jàmm ñu ànd xëy yër yéenekaay ñu xëyandoo yéenekaay gi di réew mi quotidien mu xëy di ñu xamal lan ñu xalif général des mourides Serigne Mountakha Mbacké Bassirou joxe na ay ndigal ci lu jëm ci màggalug Touba gi ñu dëgmal ak lu soxal nawetub ren bee coronavirus gi nga xam ne moo jaaba jonge ci réew mi yéenekaay gi di réew mi quotidien nee na Serigne bi ndigal li mu joxe ak li mu santaane mooy ñu jàng kaamil ci biir réew mi ak bitim réew ci bërëb yu sell yépp Serigne bi wax na ne maanaam dimanche ji ñu dëgmal nañu ko commencé ba juróomi fan ci weeru octobre maanaam bu ñu na suba la màggalug Touba yi <laughs> daan nay wax daara yu mag yi mën nañoo xëy jàng lu toll si ñetti kaamil daara yu digg doomu yi mën nañoo xëy jàng ñaari kaamil sëriñ bi tey jii sa diwaanu Poroxaan dina fa inauguré maanaam jumaa ji nga xam ne ñoo ngi ko fa doon tabax journal bi di Rewmi Quotidien moo ci xëy La Tribune L'Observateur mu ñuy xamal naan ñu Thierno Alassane Sall mi fi nekkoon ay jamono ministre de l'énergie jamono jii dafa mel ni yaramam dafa tàng génn na ab livre boo xamante ni livre bu doy waar a doy waar la maanaam suli na ci ay mbóot yoo xamante ni jamono ji sax mën nañoo wax ne boppam maanaam moo nërmeelu wax na ci pétrole bi ak gazub Sénégal bi nga xam ne maanaam luq njur ak girawal yeeg tojaange yi nga xam ne Thierno Alassane Sall wax na ko ci doy na waar genn xeetu doy waar goo xam ne maanaam ku ko dégg tee sa gémmiñ wax na ci connexion bi nga xam ne Macky Sall am na ko ak Franck Timis ak ñi nga xam ne ay complice lañ ci mbir mi ku si mel ni Samuel Sarr Karim Wade Aly Ngouille Ndiaye ñi ñëpp tudd nañ leen ci mbir mi journal bi nee na en tout cas nga xamante ni moom la Thierno Alassane Sall wax doy na waar lool la Assane Samb directeur publication yéen a kaay gi di réew mi di quotidien xëy jël xali maam na nekk njiitum réew ci Afrique metti na metti na metti na genn xeetu metti goo xam ne maanaam fu ko waaye natt daan na koy passé ndax saa su nekk mën nañu laa humilier mën nañu laa toroxal bang ne tottu xoolal Ibrahima Boubacar Keïta ak ni nga xam ne maanaam moom lañ ko toroxalee wax ko mu daal di tekk ndombal tànkam ak na nga xam ne moom la ñu doxalee ak Mohamed Ould Abdel Aziz ci fi nga xam ne mooy Mauritanie moom moo fa nekkoon am njiitum réew waaye nag bu ma joxee réew ma dañu ko toroxal ndax jamono ji ma ngi ci ab garda wi maanaam ci anam bu doy waar doy waar la ñu ko téye ndax néeg bi nga xam ne moo lañ ko dugal maanaam a pokk la néeg boo xam ne ñeenti mètre carré la amul ay toilette yooye di ko màtt tàng na jër amul benn climat adduna daal mën naa neex tey ndekk suba mu naqari ci xalim ak Assane Samb nee na Mohamed Ould Abdou Aziz ni ñu koy def jamono ji sa Mauritanie soreewul ak Samb Surabali goo xamante ni gu tekkiwul dara gu ñu jàpp maanaam làq ko jant bi yéen a kaay gi di Rewmi Quotidien ak Le Témoin mu xëy di ñu xamal lan ñu sommet extraordinaire bi nga xam ne waa CEDEAO doon nañu ko amal ni dikk ci lu jëm ci giraawal yi nga xamante ni moo am ci diwaanu Mali Macky Sall njiitu réew mi dafa mel ni nag maanaam soowee na ñi nga xam ne ñooy waa Mali ndax dafa wax ne ab délégation bu bàyyi ko ci CEDEAO la ñu fa war a yebal ngir ñu lijjanti mbir mi te lu jëm ci wàllum tëjal ko frontière yi nga xam ne réewu CEDEAO yi wax nañ ko Macky Sall lam ca wax lépp loo xam ne ak dund la nañu ko bàyyi muy dugg Mali lépp loo xam ne jëm na ci wàllum faju nañu ko bàyyi muy dugg Mali ak lépp loo xam ne jëm na ci ay produits pétroliers yéen a kaay gi de la témoin nee na Macky Sall soowee na Mali di Sud Quotidien mu ñu xamal laan ñu wax CEDEAO ñoom nag li ñuy sàkko ci ñi nga xam ne ñooy militaires yi maanaam ñu delloo Ibrahima Boubacar Keïta ci ay fonction yéen a gi nee na soo moytuwulee nag moom dana danañu ko yóbbu maanaam ci réewi arab yi rawale ko fa 24 heures ñu fekk fa colonel Abdourahim Kébé nee na CEDEAO dafa lajj ci li nga xam ne moo am ci diwaanu Mali Dakar Times xëy di ñu xamal laan ñu Macky Sall ci boppam moo dëgëru fit ndax moom Macky Sall niki démb dafa wax ne yi nga xam ne mooy tukkee ci CEDEAO war te maanaam di ko violé di ko caxte caxte di ko saax-saaxe maanaam kenn jiituwu sa Macky Sall Macky Sall ñaata yoon la ko waa CEDEAO wax ko lim koy wax maanaam mu lànk kandaare ba ñu ko jëfee yéen kaay gii di réew ko quotidien ñu fekk fa maître Assane Dioma Ndiaye nee na na leer ci bopp askanu Sénégal na li nga xam ne moo xew ca Mali mën naa xew fii ci réew Sénégal l'observateur daal di xëy wax ne waa CEDEAO ñoom nee nañu militaires yi nañu delloowaat Ibrahima Boubacar Keïta maanaam ci ay fonction waaye nag leer na waa CEDEAO na ñoom jamono ji ñoo ngi jàkkaarloo ak seenug la ji ndax musuta am ab njiitum réew boo xam ne coup nañ ko CEDEAO wax maanaam ba ñu joxaat ko réew ma yéen i kaay gii de la témoin ñu xëy fekk fa Mamadou Omar Ndiaye xëy jël xalimaam nee na coup d'état bi nga xam ne moo am sa Mali maanaam coup d'état salutaire la loo xam ne dañu koy rafetlu te nag li nga xam ne moo ko waral bokk na ci Mali gi nga xam ne tolloon na ay jamono demul nga dikkul mbay laar te lépp ma nga commencé woon ca élection législative yi nga xam ne maanaam dañoo foqarte woon lu toll ci fanweeri député ci e e réew yi nga xam ne ñoo ko séq ku si gën a mën a def ay tojaange si sam réew nga ne kii la yéen a kaay gi di Sud Quotidien nee na frontière yi nga xam ne waa CEDEAO wax nañ ne dañu koy tëjal Mali ma Sénégal mën na see am ay jafe-jafe ci lu jëm ci mbirum kooma yéen kaay gi de la Tribune ñu fekk fa économiste bii di Meissa Babou nee na CEDEAO bu ñu tëjalee Mali seeni buntu bëri na ci ay réew yoo xam ne duñu ci génn rawatina Sénégal yéen kaay gi di Dakar Times xëy samp ab laaj nee na religion ak politique fii ci diwaanu Sénégal kan moo fi nekk imam dikko yéen kaay gi di Source di ñu xibaar ne Dakar dem dikk jamono ji ay bor yu bare bare la ameel état bu Sénégal ak ñi nga xam ne ñooy waa IPRES stade yéen nañu tey ji bu 19 heures jotee la finale Europa League diggante Inter ak Séville yéen a gi di sunu lamb xëy di ñu xamal lan ñu Eumeu Sène mi nga xam ne jox nañu ko Bombardier Eumeu Sène ki mbokkam waruñoo nelaw ndax Bombardier moo aay ci mbër yi nga xam ne maanaam ñoo dëkk Pikine yéen gi nee na Tonnerre nee na pare na ngir bëre ak Baye Mandione